mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci mbiri Adji Ngoye Fall di jabari Aski Touré mi nekk conseiller bu njiitu réew mi Macky Sall ndax fàttaliku ngeen kan mooy Adji Ngoye Fall certainement oui mu ràññeeku woon loolu ci réseaux sociaux yi ci coowal financière boo xamante ni do amoon na ci ak nganale goo xamante ni organisé woon na ko ci këram madame Touré ne Adji Ngoye Fall jamono ji mu ngi dund moment yi gën a neex ci àddunaama daanaka ni muy dundee jamono ji sorewul dara ak dundinu doomi buur naam namul dara comme ni ko xale yi di waxee waaye nag loolee kaka waral du kenn ku dut borom këram di Aski Touré ndax moom moo koy toppatoo jamono ji comme une monsieur Touré dafa jonge loolee waral ba soxnam si ñeewul benn yoon moromam yi ndax kat borom këram bi di Aski Touré defal na ko lépp lu jëkkër di defal jabaram waaw waaw daf ko gàttee yàqte ko ba tax soxnam si di fël di falaale di sànneeku num ko neexee doxinu jongoma 4G waaw waaw du moroomu benn xale mbir mi le nag li koy firndeel moom soxna si dafa mel ni ku yor toolu or biir këram ba tax or fépp or partout or everywhere ci madame Touré ku mënul boobu lu yàq yawa bank leen seeni baaraam ma limal leen soxna si am na couronne en or ceinture en or collier en or parure en or bracelet en or bague en or maanaam madame Touré foo bës ci yaram wi or mooy génn li lay waral ba taaram foo ko takk weesu na ko ndax kat jigéen mele melee nam war a mel teg ci foo ko fekk muy sañse ay or ku ko xool xoolaat ko borom këram aski Touré foo ko fekk nag xool ba day fi neex mu yëree rek waaye nag am na ci droit ndax kat ku yor jongama gi mu yor boo bëggut kenn du bëgg waaye nag couple de luxe bi lekku ñu seen i doom ndax tabaski anoor yi ñu ngi ko passé ak i doom